moo tax mu xam leen ni kon xalifa mënu koo doon ci sëñ Touba ndax sëñ Touba mission bi jógu fi kon jógu fi moom service boobu dafay kon ne di wéy li ko moom mu sañoon nee na <coughs> xalifa it mën nay ku nekk mën nay lu nekk mën naa mel welokaan wu ne ndax la nga fa fekk rek mooy xalifa alors mu moom bu sañoon naybul cheikhul xadim lay doon naybul cheikhul xadim mooy koo xam ni nayib ku ne xam ne ni mooy koo wutu ilimaan bu ilimaan amee ngànt tey dikkul ci néegub yàlla bi naayib mooy dox jéego ya ilimaan daan dox bu yegsee taxaw fa ilimaan taxawoon nga xam ni li mu bëggoon moom nee na bokk ak sëñ Tuubaa taxawaay waaye buy wax ñuy dégg kàddoom muy wax la imaam daan wax bu waxatul dégguñu kàddoom mu yelu yi tamit mu daan yelu la ilimaan daan yelu waaye it li muy jëf ci cëram yi tamit moom la ilimaan daan jëf nee na lii mooy li ma bëggoon man sama digganteeg sëñ Tuubaa waaye xam nga lu mu ca teg xam naa ni loolu sax mënuma koo am waaye nag ginnaaw mënuma ko am maa ngi ñaan yàlla doon jaamu bu yàlla bu yàlla nangu sama njaam doon taalibe sëriñ Touba bu sëriñ Touba nangu sama taalibe te yëg sama digganteeg yéen nag kenn ku ci nekk li ma yéene sama bopp man Abdou Lahad moom laa yéene jàmm buy dox ci kaw suuf kooku mooy Cheikh Abdou Lahad Mbacké nga xam ni waxtu wu ci nekk mi ngi martale di wane ni moom du jaamu ku dul yàlla te yàlla rek moom lay jaamu. kon loolu <clears throat> bokk na ci loo xam ne mën nañ ko fàttalikoo moom Cheikh ci bis bi xam ne ni moom yëgoon na ni jaamu yàlla la. te it yàlla rek lay jàmm gis nga keroog bi mu njëkkee wutu sëñ Fallou mooy ñetteelu waxtaan bi mu def ndax bu njëkk bi njaareem la ko defee ñaareel bi mu ngi ko wax jëmee ci jumaa ji doon wax naalu sëñ Fallou ñu yeggale ñetteelu discours bi mi ngi ko jëmee woon ci lool fii ma toog dee rek laa fi xaar xam nga loolu lu yéeme la koo xam ne yaa ngi soog a toog 68 nit ñi ñëw di rang di raj raj loo mu ni fii ma toog man Abdou Lahad am naa xam-xam bu leer ni dara laa fi deful lu mooy xaar fi dee nit nag foo xam ne dee la fay xaar waru fa wax lu ñaaw waru ko faa jëf waaye waru fa digal kenn waaye nit foo xam ne dee rek la fay xaarit waru faa ragal lu dul yàlla ndax lu mu fa mën a ragal lu loola raglu raglu dee ko gën a raglu te loola du fanq dee ci moom kon seetlul ki nga xam ne day taxaw rek dañ leen xam naa ne fii ma toog dee rek laa fay xaar kon kooku mooy Cheikh day fay koo xam ne kon fàttaliku ay mbiram nemmi ko mbooram fàttaliku tamit jikkoom ju sell jooju mu jikkoo woon ginnaaw pas-pas boobu nga xam ni tawhid bu set wecc la iman ju wér la waaye nag ak jikkoo yu mu làmboo ak manager bi ma la doon wax hors pair nga xam ni sëñ Blaat boo xoolee ni mu manager dëkk bi ni mu manager yoon wi ni mu jëflante ak ñi mu seqaloon diine l'islam bi da ngay gis ni macha allah kooku yàlla rek mu am payam yàlla nañ ko yàlla fayal. waa xam nga valeur li tax ay valeur mën a taxaw dafa am ay éléments yu bari yoo xam ne il faut ñu interconnecté wu d'abord il faut une volonté politique. volonté politique su ma ko waxee waxuma politiciens yi di wax ay waxi caaxaan volonté politique mooy man kat damaa seq nit ñi dañoo seq barab espace boo xam ne dañ faa nekk te euh, mënuñu ko séddoo. te it am nañu en fait li ñuy wax ñoom un vivre ensemble am na fu ñu bàyyi am na lu ñuy dund tey mais am na ci lu projeté wu bëgg a dem ëllëg loolu il faudrait que ñu toog waxtaan ci par exemple ñun li ñu bëgg ak nit ñi ñu bëgg tabax lan la minimum bi nga xam ne wala bokk le minimum ci xam-xam ci jikko ak ci euh, man-man man-man maanaam capacité yoo xam ne mën na tax nga jëf loolu lan la loolu suñ ko defee nga xam ne Sénégal yëpp dañ koy dañ dañ dañ leen di teg ci yoon yi tax loolu mën a am loolu mooy waral volonté politique boobu mën na ci am su ko defee tamit environnement bi nga xam ne moom moo koy seq loolu dañ ko war a régler environnement la boo xam ne ñoo bàyyi lu ne muy man di am xoolal ce qui se passe fi mu nekk nii ak médias yi lu nekk ngay gis finalement loolu dafay am une certaine influence néfaste sur la jeunesse sénégalaise te loolu dañ koy gis fi mu nekk nii ak lan yeneen yi nga xam ni aussi euh, yombal nañ ko muy ay mesures yoo xam ne politique la euh, sàngara bu ñu demee ba cent franc nga a dugg ci boutique jënd ko. véritablement loolu mooy encouragé nit ñi ak débauche ah ak aussi euh, kilifa yi aussi mën a impliqué wu ci loolu te dañu laat loolu responsabilité boobu la xamoon dama la ci jox misaal ci bi mu dikkee noo nekk xalifa booba Touba ak dëkk yëpp a yemoon ci Zaire dañ fi daan soccoo socc yi saxar dañ fi daan galax ni ko am ndox Touba ci Zaire ak dëkk yëpp a yemoon waaye bi mu dikkee da ngay gis ni taxawul rek ni nañ wàcc ay kaamil pour mu deñ ñëw rek daal ni nañ jàng Bichri euh, ma fa euh, Maraaxib wala Nooru Daarayni wala kii ngir mu dañ taxaw rek daal ni sukkandiku ni man kat doyloo naa sëñ Tuubaa doyloo goo xam ne sëñ Tuubaa lijjanti lii sëñ Tuubaa du ñëw di ko lijjanti loolu kon gis nga euh, taxawaay bi mu ci amoon ni sëriñ Tuubaa bu ngeen gisee mu ne safeet ci warab yu xumb yëpp dikk ba ci diggu màndi sanc fi dëkkam bu tedd bii tuddee ko turam bu tedd bi bëggoon lépp lu naqar yàlla akub yenentam ak lépp luy defar jikko ak melo am ci dëkk bi kon nag képp koo xam ni nee nga da nga fi def lu wuuteeg li sëñ Tuubaa bëggoon ay ca bu yeboo muy tey maag yow danañ ko jëflante donc loolu taxawaay boobu ci boppam dafay am am na loo xam ne waxi kese du ko dindi am na loo xam ne waaraate kese du ko dindi am na loo xam ne soññee kese du ko dindi am na loo xam ne dafa laaj jëf ak jëflante te loolu moom da nga gis ne bi mu ñëwee xamoon na loolu te taxaw na ci ba gis nga bi mu fiy jógee fi mu bàyyi Touba Touba doon quasiment la première ville boo xam si sans tabac avant même ay OMS ak yooyu Nations Unies di ko déclaré donc Touba moo ñu ko doon cette ville là sans ak ampleur bi mu toll nii donc loolu taxawaay ak jëf moom moo koy waral te noonu mu taxee woon tamit incarné leadership boobu moo waral am na yu bari boo ko bëggee ma sa def it xam nga ne du la làq te boo jalgatee it du la ca du la ca far loolu aussi aspect bu ci am solo la ci dégradation valeur yi nga xam nga am ndax man su ma leeree ni mën na maa def loolu noonu su ma ko amee mën nañ maa protéger. mais mën naa ko def te loolu aussi bokk na ci liy tax fi mu nekk nii li ñuy wax anarchie am ndax keneen mën na ni kon naa ko jëm keneen ni mën ko jéem su ko defee mën na am benn sëy boo xam ne finalement moom moo ñu yóbbu ci buutu gi nga xam ni moom lañu moom la ñu nekk donc daal suñu blaat moom euh, macha allah ni mu ci waroon taxaw moom taxawee na ko ba yàlla aussi suturaal na ko ci. ñoo ngi ziare wax dëgg mbokki taalibe yëpp ñoo ngi ziare aussi mboolem alamal islam yëpp yi tamit mais vraiment di leen ndokkeel di leen encourager aussi nga xam nañ ni terrain bi ngeen nekk nii du bu yomb te toujours occasion yi su ma ko amee damay profité ci woo mbooleem euh, bonne volonté yi ñi nga xam ne ñun suñuy soppee lañu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ñu jàppale ak accompagne leen yéen ñii di yëngu ci communication dañoo nekk ci ère boo xam c'est une ère communicationnelle ñi am ab safaan sax dañuy jël ay milliards di ko def ci lool pour mën a fésal seen mbir di def ñu nekk ni plaidoyer ci lool alors kon yéen ñi nga xam ni yéen a nekk di ay ndaw d'abord di jëm ci tasaare mbirum sëñ bi di ci lu aussi te ñun xam na avec les moyens de bord xam nañ ni yëf yi c'est pas évident kon loolu ñoo ngi ñaan mbokk yi ngeen jàppale leen euh, te jàppale googu ku ko def it la wóor ne yaa ngi jàppale l'islam yaa ngi jàppale tamit ci yoon wi loolu aussi appel la boo xam ne on tenait juste en fait euh, lancer ko. à l'endroit en fait des bonnes volontés pour ñu ci si liggéey bi